nuyu di leen jaar yéen ñi nga xam ne yéen a chiffre sport ñu wax excellent excellent match de Sadio Mané magnifique bii de Sadio Mané ginnaaw bi Sadio Mané demee Al Nassr tey dugal na première bi am célébré ko malgré pour le match bi 2-1 la Al Nassr lañ mën a 2-1 Al Nassr lañ a Sadio Mané moo ubbi score bi ñu remonte leen maximum nag jéego ko xëy na mën nañu égaliser ñor mooy seen ñaan ci bi dañuy ñëw wax taxawaay mais laata loolu dañuy wax yéen ñi gan ci bile page ngeen abonné te ngeen bës cloche notification bi pour ngeen am suñu ay vidéo au taaral fii ci sport non sama gars bi coow li bare wax ci bari di xaar biitu Sadio Mané tey Sadio Mané dugal na bii boo xam ne bii bu exceptionnel la ginnaaw bi Sadio Mané duggee euh, Euh, waa ji retiré ko bal bi mi ngi ko retiré Sadio Mané dóor ko ci camp yi ci côté penalty dugal bi boo xam ne bii bu rëy rëy la euh, xool nag sedd nañ ñëpp bëgg nañ ci taxawaay bi nga xam ne Sadio na ko ci mbitaay yu njëkk yi duñ def loolu rek di ñaanal Sadio Mané mu gën a continuer ci dinaa mel nii gën a def ay performance bu baax ndax mu mën a egg fi nga xam ne moom la bëgg egg mooy dugal bi yu bari jël ay trophée te am na ci yaakaar bu baax a baax na ñëpp ñaanal saajo Mané mu continuer bu baax ci dinaag bi nga xam ne wane na ko tey ndax xooli seet nañ malgré nag Al Nassr du war a fonctionner fonctionner ko ndax équipe yi nekk foofu dañoo jël ay joueurs Al Nassr yi ëppul équipe yi nekk foofu ay doole équipe yoo xamante ne bii bu ñu fa bala ñu mën nañ kaa dóor mën nañoo dóor équipe yi ko ëpp doole ñoo fa ne ak ñu ëpp doole rek moo tax expérience moo ci des jéem a xool nu ñu jëlee championnat bi te xel mi ngi ci dal bu baax a baax yéen ñi suivre Sen sport ngeen abonné ngeen commentaire ngeen wax seen xalaat ak seen gis-gis ngeen xaar ci yeneen vidéo ak yeneen jàngat fii mooy Sen sport daa duñu raw fépp fu soor Sénégal nekk nañ ko lu xarti indi ko fii teg ko ci table ji wax leen ay performance yi nga xam ne ma ngi koy jëf euh, ca championnat ba nga xam ne fa la nekk rawatina suñu ñànc bi nga xam ne mooy Sadio Mané nga xam ne gars yi dañ ko bëgg gëm ko 100 pour cent ngeen abonné ngeen commentaire xaar ci yeneen vidéo merci beaucoup am ngeen jaajëf